أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى جميع آله وأصحابه وتابعين لهم بالهدى إلى يوم الدين موكو جلدي gannaaw bu ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi leen di nuyu ku nekk fa nga nekk di la ziyaar ñi jege ak ñi sori di sant yàlla bu baax a baax moom mi ñi may nag ñu war a yegg ci ay fan yu am solo fan yu barkeel fan yoo xam ne doy na ci barkeel ci wax gi mu ko wax ci alquran karim nettali ko yàlla wax ci alquran بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وليل إذا يسر هل في ذلك حسم الذي هجر صدق الله العظيم يالا نينا ميغي جين موم يالا سبحانه وتعالى كي كاتنم ak ci nguuram ak ci dolem neena mi ngi giñ mom yalla te lamuy giñ moy mi ngi giñ ci fajar fajar moy waxtu loo fa ñaan sa borom nangu la ko mooy waxtu wi nga xam ne ki nga xam ne moo ñëwoon di relever lay fekk si ki nga xam ne moo fi nekkoon démb di comptabiliser jëfi jaam yi moo xam tiyaaba loola bàkkaar waxtu woowu ñuy échangé nag di relier waxtu woowu nag la yàlla wax ne ana ku may woo ma wuyu la ana ku may ñaan ma may la ana ku may eh, xettali ku ma xettali la waxtu boobu mooy waxtu fajar muy waxtu am solo julit bu nek nak heure bo waru fek mu nelaw bu fekkee ne amut wax deug yalla budé jam kessa la warno gor gor xex ak bakanam ba ci taxaw ci jaamu yalla yalla nak giñ ci fajr ne waxtu wowo lu mu wañan yalla talal loxo rek ñaan mako rek ma may la mu giñ tamit ci layali ashr moy fukki guddi amna ñu wax beccëk waye guddi la ay guddi yo xamne tanef la te guddi yooyu nak mi ngi bëgg ñew àllarba gii di ñëw incha allah nekk 22 juillet moom mooy premier jour bi nga xam ne mooy zul hijja ci li nga xam ne moom la réew réewu Arabie Saoudite euh, décrété nga xam ne nag fan yooyu nag mooy dem mooy premier jour bi ngay dem ba ca neuvième jour mooy arafa ndeysaan jour bu tedd woowu nga xam ne comme que demoñu nag ren màkk ah ñun ñi fi nekk dañoo war a woor bés bi fii boo ko wooree yàlla bina la yoolu ñaari at yi nga xam ne dala koy kafaara dala koy faral say bakkaar mooy weer wii nga xam ne at wi passé mu jégale say bakkaar ak at wi dégmal loo ca def rek boo wooree bés boobu yàlla jégal la say bakkaar yooyu kon am na solo am na solo lool moo taxit kenn ku nekk war ko bàyyi xel waaye nag am solo gën a gën a rëy ndax amoon nañ ko daaw bu la gën a rëy mooy taxaw arafa tàkkusaan boobu bu jant ba sowee yàlla jéggal ñu képp ku fa nekkoon seen bàkkaar wax dëgg yàlla fa tabaarakallah yàlla nañ yàlla may déwén ba ñu mën fa taxaw kon fan yooyu nag li ñu bëgg nag mooy bu xasee tàmbali mooy àllarba googu di 22 juillet euh, wax dëgg yàlla bu kenn daggati karaw say karaw bul watu bul dagg wee ngir ormal weer woowu bëgg na nga ci sikar lu bari. di ci boole jàng arxuraan lu bari waaye di ci kabbar waaw allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wala alhamd allahu akbar kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukran wa asila noo ko mën a waxee rek riwaaye ak xeet yi bari nañu waaye nag noo ko waxee rek màggal yàlla ak jox yàlla ak gëddëm ak cëram kon mbokk yi guddi ngoog guddi yooyu nag muy waajal na guddi gu am solo muy guddi gan muy waajal guddi ak bés ba nga xam ne gars yi bu jógee Musdalifa jóge foofu nag di war a dem sànni jamra fukkeel ba ñu loj wër Kaaba ga ah jour boobu nag muy fàttali nag jour bu rëy nag ci suñu maam Ibrahim de sànn boroom ragal yàlla gu mat ga yàlla nañ ko yàlla royloo kon nag. jouru tabaski ñaar ñi lañ ci jàngee mooy suñu maam Ibrahim ak suñu sang bu tedd bu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla duñu fàtte ci alquran Ibrahima teel na pas-pasu ngëm yàlla nekk ci moom ba mu nekkee xale mbaayam ba baayam bi ko yar di jaay ay xërëm ci marché hebdomadaire yi mu koy wone lii mënu jariñ ba mu dem dem dem ba yëg mënul lii mënu ko jariñ moom xale ba tourné moom Ibrahima jàkkaarloog borom tàll ko loxo naan ko rabbi habli min as-salihin رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه سهي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق صدق الله العظيم يلا وقت سورة الصافات مبكي ne Ibrahima dem na ba jékki-jékki xam ne daal yem maam yi doon jaay amul solo yañ doon jaay amul solo ci marché hebdomadaire mooy xërëm ya lañ doon jaamu wékk ci seen amul solo foofu la tourné nag jàkkaarloog borom ne yàlla lii li min as-saalihiin lu mu lay ñaan mooy nga may ma ma mën a bokk ci gaa yu baax yi xam ne dara du détourné seen pas-pas événement bu mënti doon du détourné seen pas-pas du du corona du leneen ba loolu amee nag yàlla wësal ko doom ba mu amee doom. doom ja rafet lool waaye nag muy genn doom lañu am moom ak soxnaam ja ah yàlla na ko nag doom ji laa bëgg nag nga rey ko féetoog man Ibrahima xamu nu mu waxee doom ja loola ñëw na ko ah yow doom sama dafa mel dama gént daal ma yore paaka tiim di la rey waaye léegi mbir mi noo ko gisee doom ja ne ko yow bàyyi sama defal li la yàlla digal kee moom mu ngi wax gént la mu ne ko yàlla moo la ko digal ndax mooy Ismaïl waaye nag soo koy def dinga fekk ma nekk ñi nga xam ne danañ bokk ñuy muuñ ba nga mën ko def waaw na nga ñawal paaka bi takkal samay bët takkal samay loxo ak samay tànk soreel ma sama yaay ndax am na cofeel ci man waaye njëkk na dem ne ca soxna sa soxna sa tamit na ko moom de ak man ñun ñëpp yaa ñu moom loo ñu sant rek loolu la ñuy def moo tax yàlla ne falama aslama ñoom ñaar ba ñu motoo ci dogalu yàlla mooy Ibrahima nangu na waaye tamit doom ji Ismaïl nangu na pour ñu rey ko wa tallahu li jabin mu nërmal ko tëral ko bëgg a dawal paaka ba wa naa day naaw an yaa Ibrahim yàlla ne dama doon tester rek seet sa ngëm yàlla foo mu toll waaw ndax sa doom ji moo lu ma gënal man yàlla Ibrahima mi ngi rey doom ji ngir féetoo yàlla te dem ba nekk mag am ñu ne cent vingt ans. amul doom benn doom rek yàlla wërsëg yàlla na ko reyal doom ji féete ak man mu ñëw du ko rendi ba mu dawalee rek yàlla nee na ma yëkkati benn xar kuy mu rëy ci àjjana teg ko ca xale ba jël xale ba teg fële deret ga sotteeku dafa siggi xor rek gis xale bi yàlla nee na ah dëgg-dëgg xadd sarta ruya yow de Ibrahima dëggal nga sa gént ga ñun de ñun yàlla dina ñu fay képp kuy def lu baax lii nag wax dëgg yàlla metti woon nattu la waaye nattu bi wax dëgg yàlla ñaawoo ci yàlla nee na man maa ko nag wuutal remplacé ko jotee ko nee na kuy bu mag ca àjjana lii nag ñu wacc ko mu nekk nag histoire boo xam ne kenn dootu ko fàtte suñu maam Ibrahima moom ragal ga mu ragaloon yàlla gëm gi mu gëmoon yàlla mbokk yi yàlla nañ ko yàlla defal lu waay am te gëmoo yàlla amul solo lu waay ñàkk te ñàkkoo gëm yàlla rek ñàkkoo dara yàlla na tudd ko ci lii laay fayee képp koo xam ne da ngay defar lu baax képp ku nangul yàlla ak lu métti métti boo ñëwee nga xam ne yàlla moo la gën a baax yàlla seede ko ne innahu min ibadina muminin bokk ne samay jaam yu gëm yàlla yi yàlla nañ ko yàlla royloo lii nag moom mooy li ñu war a dem di ko def te moom mooy tabaski kon ku ko mën nang ko def waaye ku ko mënoon a xam ne sunna la bu ñu rey suñu bopp waaw pandémie la ñu jógee boo xam ne lu ci bëri ci wàllu économie bi daanu na waaye nañ ci ànd ak sago bañ ci dugg ak yàq ak pasar pasare ku ko man nag nga def ko nag moo gën moo xam nga nekk góor ngoo xam a nekk jigéen waaw koo xam ne nga am nga lu ëpp loolu nag nga dimbali ay nit moo ëpp solo ngay puukarewu rey xar moo xam ne mën na jar un million te mën nga ci jox ñaar wala ñetti nit ba ñu tëbaski kon mbokk yi foofu lañu yem di sant ñëpp di gërëm ñëpp. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين سن شيخ أحمد تجان درامي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ببنيون